yëgul ne am na ay rassemblement spontané yu bëri yoo xamante ne nee nañ daañu am ci centre ville au courant de la semaine hmm. yëgu leen itam ni dafa am ay points stratégiques de la capitale yoo xam ne fu mu ne nii ñu ngi ci haute surveillance ah alerte nee na Massata Samb Mamadou Niang mi tey ci altine bi lañ leen di jugé ci kàttanu yàlla ñëwal ma xool Dakar Times ñëw ci <laughs> méga meeting ca Kaolack <laughs> nee nañu pour réélire Macky Sall man di barki sëñ bi la ilaha ay man bi tey nii ñu lay jaay naan la en deux mille vingt quatre mégawatt journal ba la ko wax lu la neex la bëgg kaay ma xamal la nag. réew mi wax naa leen fii kenn du fi tong tong lii du ko nangu de réew mi ñun kenn du ñu tong tong. te kenn du ñu sacrifier loolu du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu suba ngeen def seen rassemblement politique waa waa lii sax moom sax kañ ñu dugg ci campagne électorale. et puis quel sens. mais oui pour la. mais ça par le code électoral. mais loolu wax dans quel contexte dañ war a mën a permettre ñuy battre campagne. c'est par le code électoral. on n'est pas en na. c'est pas ah, kon ñoom dañoo faru ci nguur bi rek la neex. ñoo ko tey bu doon keneen ah, bi bi bi Ousmane Sonko di def. doxantu tuuram xaw ma nemmeeku tuuram bi. ñu ko ko doon tere waa kon ñi amul gendarme yu leen topp fi dara xew fi. ñëwal ma ñu direct news ñëw ci xolal lii. mi ngi fépp. Pape Mademba Bitèye mobilise et engage le Saloum ba pare ba pare titraay bi vraiment man sincèrement enquête. lu euh, ñëw na ci ci ci ci ci gouvernance bu ne dee deniers publics mu ne l'heure des comptes. Cour des comptes nii moom nga doon wax sànq. waaye ñëw na ci société civile bi nag nee nañu rapport cour des comptes bi bu soobee yàlla duñu ko bàyyi noonu daal mu jàll. Ah. Mhm. forum civil dafa exiger ouverture de toutes les informations judiciaires ñu ne bi nga xamante ne cour bi moo ko laaj beneen bi mooy Moundiaye Cissé mu ne président amul choix amul choix te il y va de l'image qu'il va qu'il va laisser à la euh, postérité xam nga xam nga xam nga président bi président Wade bi mu demee dañ koo jiiñ ay tapis. Mhm. tapis rek la ah, la garaawul ak tableau garaawul. Mhm. ñii li ñu diri. brouette attanu ko. Mm. camion benn attanu ko. lii du ñu xaar sax yombal xiyam ñu leen koy yen fii lañ koy yenee fii ñu ànd ak moom di jagat jagati. Oh, si si non non si si may ma may ma rek bu ma bu ma ñaan na bu ma ñaan petit poussin bu ma ñaan ne damay wàcc te loolu ay bañ yoor yoor ñëw na ci présidentielle 2024 assemblée Yewwi Wallu cumul de mandat journal bi mu ne su Souleye Diop génne na dëgg yi. Mm-hmm. bu ngeen ma ci laajee ma may leen benn wala ñaar. bi ci jiitu mu ne ci États-Unis i Sall dafa déclaré candidature am mm. mu ne waaye peuple bi lay jàkkaar lool loolu na la leer beneen bi mooy gouvernement bi dafa bëgg a empêcher député yi mu ne ngir ñu ñu ñu fuy ne daal sur la destination des fonds votés daañu ko yër ah, par force yow loolu beneen bi ah assemblée nationale mu ne toujours des députés de l'APR qui font sans aucune conséquence le sale boulot liggéey bu salte bi yëpp ñoom ñoo ko fay def foofa ca assemblée nationale mu ne man du ma tontu Lamine Thiam mu ni je suis allé bureau dem naa seeti ko beneen bi mooy chacun est maître de sévérité ku ne yaa moom sa dëkk yow lii sa dëgg bu soose njaay sa dëgg la yow waaye bañ mën na bañ a nekk dëggu pa asam sec ku nekk ak li nga gëm waaye jënd leen yoor yoor waaye <laughs> beneen bi mooy 24 heures romb nga benn surfacturation foofu de ba ma xal nadière baa du luy tàngal fond force covid 19 waaw xool xool moom nga doon wax sànq <laughs> deux milliards ci ceeb bi ay waay ma doon wax sànq ay ceeb ceeb bi ceeb bi ceeb bi nga xamante ne bu doon bu doon ënkël benn si sax du ma mer ceeb bi sax bu doon bu doon riz parfumé bi nga xam ne boo ko toggee ceeb boo ko dóoree kuddu ci noir danaan déjjutoo waaye ceeb bi nga xam ne da ngay dulug ci ni ba fees di xaar mu ñor ay ceeb bàjjo bi kenn mës ta gis lii tey damit bañ te am nay xeer ceeb bi am nay xeer fii kaay ma wax la xoole sama ñaari beñi kanam yi mel ni ko ceebee ko dam te dinaa porte plainte ceeb bi 24 heures ñëw na ci rapport explosif bi nga xam ne Cour des comptes moom moo ko def ci fond Covid 19 mu ne Sénégal dafa nekk sur le grille des partenaires 24 heures vraiment journal bu ma neexee ñu ni dama koo bëgg critique ñëw ci troisième mandat mu ne xoolal Pape Demba Bitèye mi directeur général Sénélec te am lu la doy lool mu ne euh, tànk yi daal la jël dina ko patax ci biir palaat mais le pied dans les plats a traduire nul ne peut appuyer la candidature de Macky Pape Mademba ma waxaat la ne ne sa nul am na nul bu ko jiitu te moo ko gën a puissant. c'est ça yow sa nul égal zéro. c'est ça. sa nul égal zéro nul boobu sa nul la yow la consigne yow la consigne ñun suñu yoon nekku ci te na xelal kaay ma wax la am na loo xamante ni ñu ko seetaan ci réew mi de l'exclusif balaa maa dee rek ñu naan na ngeen di xam ma di taal ñi xam ma di taal gis ngeen leen réew mi xam nga du ñu àtte waaye yow ñi koy wax sax ñoom ñi koy wax. ñooñu la mais est ce que ñiy toog am fit jàkkaarloog nit ñi di wax waxi troisième mandat te dara fekku leen ci. voilà ñoo ñoo yëpp sénégalais. ñoo ñoo yëpp sénégalais. mën naa poser question. bërëxal koo ma koy laaj. madame man nga koy laaj wala petit poussé. waa ñëwal laajal damay bañ gars yi defal ko collage balaa journée bee jeex kon. laajal man ak. li may laaj mooy dans tous les cas rek del del del bàyyi xel petit poussé. comment lam doon jàmbat sànq moom moo fi ne ba tey di. comment comment se fait-il euh, comment se fait-il que information bi ah. nekk ci une journaux yëpp ah. c'est une question euh, que je pose laaj mooy mooy mbirum troisième mandat bi bi tey deuxième quinquennat ou troisième mandat. en en 2011 la presse tire sur Biteye en 2022 la presse met en valeur Biteye lii mooy wax ci. Mm. en 2011 la presse la bi ñu doon wax troisième mandat dañ doon tirer sànni xeer nekk ba nekk ko fi def. bii nag ñu ne non bi eh, waaye ku ah. taaba maa ngi laaj daal moom daal xam naa alaf ku taaba ci wax naa la ko pourtant kii petit poussin ngaa kii de mën ngaa kii de dem de euh, ngaa dem euh, mane naam jeexale seen revue de presse yu dem suñu yoon parce que c'est c'est c'est affligeant ah Pape Mademba Bitèye mii daal xaw ma ma dafa surplombé daal la Saloum Mm. beneen bi mooy dafa engagé wu pour la réélection de Macky Sall en deux mille vingt quatre. Eh nee na daal moom dina ko fal dina ko fal un point chez tout et rapport baa ngi Cour des comptes mu ne les éclairages clairs Zale yaa ko doon laaj. te la waaw te la rapport bi tudd de. waaw waaw waaw waaw waaw ñëwal la dépêche ñëw ci euh, Serigne Mboup mi nga xam ne dafay booster waaw dama doon laaj ndax Serigne Mboup moom moom dépêche wala que parce que parce que dépêche Serigne le temps. sëriñ yaa moom dépêche. oui ma bu euh, bu bu waaw tant que tontu woo ma man du ma la liir ñëwal laas. oui ma fi eh. ah ah ah. Hmm. ah. ah waa lii la kay. ah ah waaw mais nag bu ma bu ma mbokk moomee saa yu liiree dépêche wax ko. dëgg la man sëriñ boobu rek laa gis ñu tiitre di sëriñ boobu tout sëriñ boobu. gis nga gis nga gis nga businessman yi. Ousseyn dañoo yeewu léegi ci ni am média dafa baax ci business bi. da leen bàyyi gaa yu bari mami. gaa yu bari dañoo am seen ay quotidien ah. day am nag ñuy feeñle ak ñu dul feeñle waaw man tamit damay ubbi sama quotidien xaaral rek léegi ma créé sama quotidien ke créé ko ba pare révider titre ko te tous ñebe du ci fekk classe quotidien ñëw na ci troisième mandat man un dëkk xam nga noo ko tuddee euh, Sabine Sabine quotidien wala Sabine actu boobu daa yomb boobu saful moom dafa tubaabee may ma ma réfléchir ci dinaa ñëw dinaa créer journal. bu bees genre titre yi man daf may jooy doo quoi. Hmm. ñëwal en euh, soo am ah, di nga am ko la plainte léegi de. Hmm. dañ nga ko ko ñeme. déedéet ki lay plainte gi ci plateau bi la. mami man maa yóbbu sama bopp dégg. déedéet waxuma foofu de ki lay plainte gi ci plateau bi. non fii kenn mënu la fay plainte dara ndax li ngay wax ci cour cour bi cour cour des bi moo ko non non dafa am ku lay plainte kii toog ku lay plainte mu ngi ci plateau bi. kii yëpp kii yëpp nga defaru ñëwaat. garaawul jiw naa ko ko. soo sañ ay laa xawla wala xawte. le à Tamba. su laa sew. Hmm? kon la du bii de. déedéet kii kooku ah, nañ le le visage renouveau politique à Tamba. ku ko xam ah, la man de xaw ma ko xeetu yi nag moom ah. taskatu xabaar yi yéen it kenn du yéen yaa tooñ sa bopp xam nga yow yaa ko liir man gis naa ko liir ma ko man lu ma neexee lay liir lu ma neexul du ko liir nii laa mel maa ngi buuxal le ñëw na ci mesquinerie ci du bugga Macky et la sournoiserie de Ousmane Sonko ñu ne Bougane deux points parfum d'une liquidation annoncée journal bi nag dafa sampub laaj laaj bi awma tontoom paasan boo amee tontoom bismillah bu keneen baax na <laughs> boo ko deful xam ba dem sulaase xam su Wally Ballago <laughs> Wally woy na ko kaay leen ñu soulagé le quotidien le quotidien ñëw na ci conflit ko <laughs> mu yaa ngi bëgg muñ lu naqaree le quotidien ñëw na ci euh, kireen mi mu ne euh, conflit entre paysan ak berger xam nga fii lu fi xew mu ne du sang dans les champs ay problème récurrent yoo xamante ne nii du fait des animaux yoo xamante ne dañu mm. nekk en en divagation beneen bi mooy les présumés meurtriers teg nañu leen loxo jàpp nañu leen yaa ngi dégg. Mm-hmm. ñu ñëwaat ci beneenu up euh, yéenekaay gannaaw le quotidien le réveil journal bu mag baa ngi mm-hmm. rafet couleur tubaar fa kàll ñeme teg baaraam fii nit yi indil ay information ak ay révélation yi ñu soxla. xamoon nga ne le réveil nga mën a tudd ba nga yeewoo fajar la lépp leer ñu ne un mois après la disparition de l'adjudant-chef Didier Badji xam nga nit ñi fàtte woon nañu ko réew mi ci actualité la ñuy dox bu ñu paree wax benn mbir dañ koy daal di paqueté tegee nee mm-hmm. gis nga fii quelque fan cour des comptes kenn dootu ci waxati mm-hmm. dañuy daal di indiwaat beneen mm-hmm. boobu alimenté waat de bàyyi ñu fàtte yeneen yi ca des xam nga petit boobee dañ ko bëgg fàtte saa ko 45 milliards yi ba tey ñu ngi xaar waaw kay ñu ne leen mbiri Didier Badji mi ñu bëgg fàtte ah le réveil ne leen bu leen ko fàtte ndax dossier gendarme bii dafa nekk au point mort puusul paasul dafa taggateem bi te lii nag dañu ko war a gëstu lijjanti ko parce que ñu bëri nañ cee bëgg am ay leerlu yaa ngi dégg beneen bi mooy enclavement wu Casamance journal bi mu ne pont wu ñibat bii soo demal ñu fa ndax traversé ba tal na foofu man de ku ma woo ma dem traversé ba metti na xoolal jigéen ñi ak xale yi ñoom ñooy principal victime ciy la rafet beneen bi mooy population yi ñuy dénoncé seen mise à l'écart ci plan Sénégal émergent waaw plan Sénégal émergent moom xanaa jam ñaajo la yam mu hmm. ne lii lii lii lii bu ñu naan la ab pont la bu nit ñi aw wax naan ko bu la vision du président sa à Diamniadio. Euh, gars yu bëri Idriss Seck je crois. waxul lool. moo ko njëkk a wax. Idi mel mi. waaw déedéet Idi waxul lool. Euh, euh. loolu Idi wax ko Idi wax lool. gis nga politique idi mii tey min mii moo ne woon la vision du chef de l'état s'arrête à Diamniadio xanaa léegi la xanaa vision bi dem na ba Thiès kon ah déedéet moom kay yëgul Thiès nag dëgg-dëgg Diamniadio koy ci biir Ndakaaru la yam nañu xam ci dëgg les échos ñëw ci meeting bu mag bi nga xam ne meeting de remobilisation des troupes ñu ne dañ doon dajalewaat daal euh, foofu ca ca ca non mais mais mais mais Pape Demba Biteye mii mu Abdoulaye Daouda daal lu mu wax ca Assane ma gën a tàngal sa xol mu ne xam nga lu ñuy liggéey pour falaat président de la république Macky Sall Abdoulaye di Diallo ne ko may ma ma ñëw may ma ma ñëw mu ne ko Macky Sall mooy sunu candidat du X te du Y benn candidat lañu ñu am Macky la tudd sant Sall. mais xam nga lu ñu fàtte. lu ñu fàtte. soo sa xam nga lu gars yi fàtte. waaw oh. Sam. aw rek la maa dégg. nee na du X du Y. waaw. mais nee leen ñu laaj yàlla kuy candidat yàlla. Hmm? xulil eh yàlla ñu yàlla may fekkee tal dañ ne du x du y ne leen ñoom ñu laaj yàlla kuy sa candidat kaay ma wax la xam nga li la bëgg a wax ni yaa ngi koy laaj loo ma la ko ci olof bu gàtt waa tekki ko la bëgg a wax que ñoom ñii ne diw yàlla waaw dégg naa li muy wax di bu baax ñoom dañoo xam suba luy xew xam lu ma ko bëggoon a tontu Socé Ndiaye xam nga lu ma bëggoon tontu Pa Assane dama ko bëggoon wax ne bu ko laajee laaj nañu ku mën a résoudre x ak Y. ak Y. kooku ba muy wàccee alphabet booba dara xewul wallaay barki sëñ Bamba na bu koor boo laalee caméra ko ba ba fay dina la dóor dóor yu mitti mitti mitti mitti mitti mitti mitti fàttali la yow itam sa kàddu yi nga fi waxoon ndax yow mi ah cour baa ngi fi tamit cour cour mi mu ngi fi ñëpp lay épinglé dama ne yow Pa Assane ñoom bu ñu ko laajee yàlla laaj yàlla ku mën a résoudre x ak moom mi nga xamante ne calendrier am amul gome amul oh. effacé li mu xës ba bind ak li mu xës ba wax noonu lay demee hmm. neex naqari loolu mooy bëgg-bëggu yàlla suñu borom hmm. moom rek a fort moom rek a puissant moom rek a am doole moom rek ay buur moom xolal day xajale rek te ñi ñi ñu yaakaar ne yàlla dalay may pa asan juum nañ yàlla mayu la dalaa abal lépp lu mu la dénk du sa moomeel boo ko defee sa moomeel nax nga sa bopp mhm. kon nag loolu nit war a bàyyi xel la saa su nekk si toogaay yi lañ koy jubbanti te xam ne yàlla am na club 50 pour cent préférence nationale mu ne dafa def première victime am journal bi mu ne monsieur Afrique mii Da Vinci Eric Copy dañ leen a dàq viré mhm. d'un portefeuille initial de 100 millions d'euros mu ne Vinci dafa proposé 3 millions d'euros à Ecotra mu ne naka la Vincini bëggoon na changer de qu'elle a reçu son avance de démarrage journal bi ñëw na ci ñu mu ne à la place de Ecotra yi et des entreprises nationales mu ne Vinci dafa bëgg a liggéey ak ay sociétés libanaises ak françaises mbir mi nag <laughs> mu ngi ci biir journal Les Échos l'évidence ñëw ci Vélingara mu ne euh, président conseil départemental bi Ibrahima Bari mu ni euh, dafa dissoudre partem ci biir APR troisième candidature baa ngi ni Pape Mademba Bitèye mu ne porte le combat dans le Saloum libération nag ah. libération nabu baal ruube bi ñëw na ci salsalaatoo soo bi bal ba dem na kaw soo balaa nga koy laal soo soo salsalaatoo soo bal ba dem na kaw soo balaa nga koy laal soo dafa ñëw ci tong-tong bi laay bongo baa ngi door a neex woor ma fiyee ñaa baa nga woor ma Babacar bongo mu ngi door a neex xam nga xale yi dañuy taasu naan aawa yaay aawa yaay aawa yaay yaay sunu aawa yaay sunu yaay aawa yaay kii nag moom dëgg-dëgg tong-tong bii moom la libération xëyee xam nga libération parfois day laal fu neex mu ni foo Covid bi gestion caisse d'avance bi ak aide et secours yi tong-tong bi am biir ministère de la femme Socé Ndiaye ci laa bëgg membre ministère yi premier ñoo ci jiitu à être servi daaj bi dafa avoué te itam waxaat na waataat billahi wallahi mu ni lu wax ci beneen laa doon tiit na xale def beneen ñoo laa doon génne allahu akbar libération moo ko wax moo ne mu ni les membres du ministère premier à être servi le DAGE à vous mais que. c'était pour. waa jure nag mooy billahi wallahi tallahi xaalis bi dama doon génne xale yi ci mbedd bi. Eh retirer les enfants de la rue. Eh beneen bi mu ne des noms à plusieurs reprises pour puiser dans la caisse d'avance xam nga bu takk ci caisse d'avance xam nga ñu def. mais gars yi gars yi ñoo aay. wuy la ak aide et secours yi xam nga nu ñu def. ak prestation de service yi xam nga nu ñu def. ak acquisition yi xam nga nu ñu def. de bien présenté comme des aides dañoo dugal petit poussin un petit poussin deux. petit poussin trois petit poussin petit poussin petit poussin petit poussin. petit poussin 8 9 10 11 20 30 40 50 même tur yi. oui man moom si biir sama. waaye Sénégal Sénégal am neex. tàgg naa nga la teel ma. appui accordé par l'autorité mu ne la découverte ahurissante des vérificateurs. wallaay ba ñu wëree ba gëstu li ñu gis jommal na leen. <laughs> Eh. aw bi ci kër gi comme xam ne bandi la wëyu la kooba la bandi baa ngi nii. <laughs> yokk ci. la ilallah yokk ci aaya bi mbag. ah sa tala kurus. yokk ah. aaya bi mbag aaya. aaya kana waree ndo ginda aaya li am ni xola xola xola xola prof ndol journal bi da ko defal gurutin ñëw ba ca poqotaan ba dugal fa pap ba dem xanaa loolu mooy pap jàkkaarloo ak lii xoolal lii bala ngaa wax xoolal lii balaa ngaa dugg ci troisième mandat yow di wax ne personne ne peut empêcher la candidature de Macky en 2024 waaw doo wax ci tong-tong bi ba noppi a eh. waaye waaye tong-tong seeraas bi du jox hmm? ana ana ana ana ana tànk bi ana yéeli xar bi lu ne lii lii lii. réew mi yëpp la. laay la man dama war a bàyyi sax. ñu def ko eh, séddale séddale eh, bukki nii. réew mi yëpp la. xoolal euh, de service yi. yàlla. Ibrahima Ndiaye mii. faux directeur. Ah. ministère du tourisme arrêté par la moom daal moo jël boppam jox ko décret nommé boppam def boppam directeur. yaa ngi dégg ca ministère du tourisme ba mu ne en échange de cinq millions de francs CFA. xar jatu tànjaam yi daf ko créer loon benn fonction pour mu faciliter ay voyage am. ca ca te United Tasters. déggu ma déggu ma ah déggu ma ni. moom ndaw si en échange de cinq millions. juróomi millions la ko neexal. moom xar jatu tànjaam pour que waa jii di Ibrahima Ndiaye créé ko fonction bu bees muy directeur du ministère de tourisme pour moom mu mën koo yombalal tukkiim ci United États-Unis. daa ilallah. waa Libération mii lan la bi rëy na de. pourquoi mu tàng sama xol bi nii comme ça pourquoi ça. pourquoi Libération me me me me chauffe mon cœur. alliance pour la république lii day gën a tàngal sama xol bi mobilisation autour d'une troisième candidature journal ba ko wax duma laal leneen ñëwal l'indépendant journal bi bu sama waa ji loolu daan sir mu ni publication des rapports des corps de contrôle sans conséquence judiciaire sans conséquence ok journal da koy ñeme compte et mécompte de l'impunité journal da koy ñeme boo dee titre titre ci li xew bu ragal bu ko yëpp bu ko yëpp bi nga buubu moom moom ko kenn la bu ko yëpp waa ngaa loo sonn yow ñëwal waaw mais kii tëgg kan la tam ay waay njóogu ndeysaan alaaje maam it tamit tu es mécontent de l'impunité bi bu ko yóbbu dugg nga ci bu ko yóbbu bi de ah, man sama tànk yee laa dama gaaw a départ man xam nga lu may bañ nabu rëmtëm bitam lay bañ danga am kersa Ah. temps euh, Paasan Mbayante nee na rubrique VAR bi ñuy waajal. Mm. générique bi bu ko yóbbu lay nekk. waaw ah, dama rus dama rus. nag. loolu loolu xel bu rafet la saawu générique bi. waaw loolu xel na ak alxuraan li ñu daj deux mille sept. ay lii la ba eh, jooy lan la ci ci ci ci ci ci ñàkk d'accord. wallahi azim lii nii ak lañ ñu waxoon dama rus. benn bokk yaakaar. dama rus. chaque sama waa ji chaque cent waa ji yéel sa mburu naanal sa meew gis nga fond covid bi képp ku ci dugaloon sa xaalis mu nekk contribution rus nga ba toll ni i ci Macky Sall waa këram la ilaha illallah mais da ngay xool ni dajale woon seen ñaq mhm. indi ko mu nekk contribution mhm. waaw ñu ne la xaalis boobu moom am na ci luñ luubal loo xamante ne ni dara leeru ci. moo tax nag impunité bi war koo ñu soo seet mais mais mais quand même waruñu koo nangu ci réew mi impunité fi war a jeex nañu waxante dëgg. Ah, indépendant ñëw na ci yaa ngi dégg. ñëw itam ci eh, la ilaha illallah. ba jàmm ay man lii ba jàmm. ay woon directeur général Senelec ay yow woon nga adduna bi di yow dem Pape Mademba Bitèye mii. xam naa ne daal mobilise Kaolack pour la réélection du président. ah nañ waxante dëgg docteur Demba Ndour moom moom mooy secrétaire général bu SAMES bees bi yii yëgoo leen ko tamit de ah dama la ko doon waxaale rek. Moussa moo ko xëy na Moussa Sène Absa li mu wax foofu. Moussa da koo bind tey. waaw tey sama waa ji loolu daal si ren nee naa de journal bi tamit kenn du moom. Moussa Sène Absa paase mu ne. Mhm. mon pays est pris en otage. laaj ma pourquoi. pourquoi. pour une affaire de fesse mal ficelée. Oh, c'est calme. c'est pas de fesse mal ficelée. nee mon pays est pris en otage. pourquoi mu ne ko pour une affaire de fesse mal ficelée. ci man ah, dama bëgg paa bu dégg tubaab. du ma ko firi ci ci wolof loolu du ko def bu ngeen ma jox milliard sax du ko wax du ma ko wax l'info ñëw ci candidature Macky Sall ci présidentielle bu 2024 ñu ngi dund euh, nuyu tuy nuyu euh, Pape Babacar euh, ñu ngi koy nuyu bu baax mbayeen bi ñu ngi koy nuyu bu baax mbayeen bi walaay xel day fattu xel day fattu mm-hmm. waaye sama xel a ngi ci yow candidature Macky Sall ci présidentielle 2024 mm-hmm. mu ni buté ak Abdoulaye Daouda Diallo validé nañu candidature bi bu leen fàtte ne validé waale naa candi kii bi albumu Pape Diouf bi validé waale naa ko fii ku nekk ak li la ñor man rataxun ngee ma ñor sama am ba ci benn problème. observateur bi lu journal bi wax nga ne validé na la. candidature bi. ban journal bi wax loolu ban journal. Nariette. l'info lan la. Euh, ngaa la képp ku xëy di ma daggal delloo naa la ko. ah. yow mii. déedéet paas. am ñu xam nga lu tax. lii saaga ndey la. Ah, ah, ah, ça c'est insulter un peuple. Mm-hmm. la constitution dit. Mm. ñaar nit wax. Mm. une presse jël def ko ala une ne waa il yow presse bi daggaloo leen yow yaay wax ne il yow presse bi yow. Mm. j'ai honte. xam naa ne lii moom Mamadou Thierno Talla yëgu ko. moo ko moom moo ko moom Cerno yëgul li Cerno Cerno en 2000 ba muy def Casamance. Hmm. Abdoulaye Wade ne bu kenn wax ci Casamance dig delsi ko ñu nga fa woon populaire Cerno du def li hmm. kak ba ba ñu def li yëgu ko. moom moom Cerno moo ko moom. moom moom moom Cerno daal yëgu ko. Hmm. il a été mon premier directeur de journal yëgu ko. Seynou Ngom mii tey mu dee. ma ne orchestre bi tëgg ci studio bi tamit loolu war nañ cee wax. waaw ci ambiance studio la. Ousseynou Ngom. orchestre bi fiy tëgg war nañ ci wax ah lii kenn su koo gis l'observateur Nabou Cor ñëw na ci délinquance mu ne du débat politique observateur mu ne vie privée mu ne ce gros danger public xam nga les multiples conséquences d'un débat politique qui vole très bas mu ne docteur Ismaïla Sène lu mu ci jàngat mu ne dañu nekk ci benn processus de déstabilisation sociale du pays mm-hmm. beneen bi du Fall historien mu ne il y une sorte de cassure dafa am damm-damm bu am ci suñu espace public. Mhm. yaa ngi dégg lii nag observateur de cee ñëw tey waaye leneen li ma ñor ci suuf muy enquête bii brancardier wu hôpital Thiaroye bi nga xam ne dañu koo jàpp ci mbiri passeport de service tamit brancardier lu sa yoon ci passeport ah. kooku la ndaw si créé loolu. mooy dafa ndaw si li ma doon wax sànq waaw moom moom dëkk brancardier la. def ko directeur. te ministère du tourisme. Ah, ay waay parce que parce que nit ñi nit ñi mami Sam. waay Sénégal mami mami. Ah? nit ñi politiqué la. da ngay toog ci bopp koñ bi grand bi day politique booy foog nga jàppale grand bi ñëwal jàpp ci affaire yi nga ne ca ne ca ba nekk ci station c'est cette merde là qu'on nous propose dans ce pays là qui fait très mal on trouve des gens yu mel ni man rek ne ci bopp koñ bi grand bi booy saa yi grand bi dafa am mobilisation ñu ne ca ne ca di jege di jege di jege ba xëy bis ñu teg leen ci kaw. ñu fut ce la là ngeen baal ma. vraiment. ëpp na de vraiment ëpp na de dafa ëpp de. ayca ñëwal ñu dem ci beneen euh, yéenekaay réew mi ñëw ci Mamadou Diop Decroix mi AGPADS mu ne politiquement. mbay cette motion de censure mu ne mm-hmm. a servi le le le pouvoir ayca. Euh, euh, ay waay lii. barki sëñ Bamba. xam naa ne. am naa ni li ma naqari lépp. mënuma mhm. ko waaw waa kii bi mooy rapport bi. rapport de la cour des comptes et impunité mu ne test grandeur nature pour Macky. test. waaw. kon moom test la la ah waaw loolu la wax de. il les a lâchés. pare ah. dafa sonn lâché na leen. surtout à ah, dellu si waat na ci Ami Ndiaye ñii bi mii mu ne génn na hôpital ajuma la génn hôpital repos forcé daal bu fukki fan ak juróom moom la amoon moom député maire bi dañ ko interdit de déplacement nag mu ne tant que sa convalescence ne sera part terminée waaw mu ko dóor yi mujjee naa métti de dóor yi métti na de dóor tëdd na ci fukki fan ak juróom te après <laughs> alma ci moom dëgg ah journal bi wax journal bi nee am na am na am na forcé bu 15 jours ak li ñu ko def hôpital lépp ba pare dañ ko interdire déplacement tant que convalescence am wérugu mooy ne même fukki fan ak juróom yi mu tëdd yëpp dafay continuer di tëdd également ah Amy Ndiaye ñibbi bi yàlla na yàlla fëgg boppam waay te bañ a tëral ah, amin waay amin ñeent yàlla nañ leen bàyyi tey sonal na nag mujjee na sonn ah les députés la ah yàlla nañ leen bàyyi tey amin amin amin ah ñoom de tey la ñuy taxaw ci yoon doy na waar de lii par ma dem ba bi tey billaay duma la tuddaat waaw Air Sénégal yow eh maa ngi tuuti ci Air Sénégal narière Soos Ndiaye naa la gaañ tey de. bagage d'une centaine de passagers mu ne dañoo réer introuvable ñu ne réer nañu mais nga bagage yaa réer mardi ba tey nag la ñu réer nag. ñaata passager. ah d'une centaine. bëri de passagers waaw. seen i bagages la mër kenn xamul fu ñu ne. Eh aywa sam. waaw Air eh, Sénégal moom moom lii mbaa jàmm. nee na mais lan moo tax affaire Ami Ndiaye génn jour bi procès bi di am. ah mooy mooy kii bi. non tey la noppalu bi. léegi lu tax ñu génn lii. à la une ci bis bi ñu ne dañuy amal procès ñële. bonne question. mooy repos forcé bi. repos forcé bi non je veux dire comment un journal Daouda Thiam Daouda Daouda di nga ma ko ma xarit di nga ko may gars yi mënuñu di jor nekk ci presse bi gars yi àdduna yàlla am na te ëllëg day ñëw on peut pas bul nangu lii xam naa neewoo fa fekke woo ko Daouda repos forcé de quinze jours du information je suis désolé. Mm-hmm. contexte bi ñu toll la il y a une semaine qu'est-ce qu'on nous a dit que cette dame là est nommée vice-présidente association des maires du Sénégal. waaw moom waaw nan la ñu nommé fu tëdd waaw foofu lañ ko nommé moom dafa demoon. mais moom moom mooy hôpital de. non non alpha ou bêta. nan nan la nit di nekkee ci tawat sonn am nu mu kii ngeen ne yéen nommé ngeen ko vice-présidente organisation bu toll noonu. mais xanaa demul woon laa ca vote ba amul. ah je sais pas hmm? beneen bi. beneen bi sàmb. je sais gën a wóor. Hmm. sàmb. Hmm. tëjul kenn ñaar ñi nga xam ne mooy waa ak waa PUR yi ñuy wax ñaari député yooyu. Hmm. damaa bokk ci ñi gëm ne. jigéen kenn ko góor dóor dañoo juum. war ñu koon def. loolu moom loolu moom dafa ëpp. et il faut que opposition bi muus ku lay wut da nga kaa moytu. en passant. mais lii nii. lii ah. nii ba nga nekkee Qatar. wax naa mais mais lii nii. la presse sénégalaise presse bi dimbali leen peuple bi. dimbali leen sénégalaise dimbali yéen gis ngeen li nu daj ci mbiru Pape Alé Niang. ay waay dimbali leen ñu. dimbali leen ñii dimbali ki ngeen war a dimbali leen ci plateau bi de du ngeen ko dimbali te yàlla rek tax wax dëgg yàlla tamit nag bët bu dul doj. Eh, soo sa njaay. <laughs> pale ngeen wala. waaw. ma jóg waaw jógul. similaay eh, ñëw comme yéen nee ngeen amu leen sama sax seen yaram du daw xamu leen ku leen xool ci bët xamu leen ku leen loxo jeeru xamu ku leen piis xamu leen piis ñebe yow dugal fii ñëw ca bëgg ci suuf su alal la yàmmay énervé seen quotidien Casamance après le démantèlement des bases rebelles mu ne armée bi dafa traqué les cartels ay waay orchestre bi si studio bi mu ne culture yi yàmbaaji bayum yàmbaaji chambre indien imposer na sa loi le long de la bande frontalière dans la zone de de mu ne la grande muette nag en croisade dans cette zone mu ne que les ouvriers agricoles appellent Espagne Espagne la ñu ko woowee. yamba ak ñi nag suma kaali but aywa yamba. tribune ñëw ci la justice va sévir contre les corona dealers. mu ni le remboursement ou la prison. mu ne les personnes épinglées remplacées et livrées à la justice yaa ngi dégg. ban titre ngeen bëgg ma liiraatal leen ko balaa may romb ci leneen. parce que lii ah? mhm. faut ñu marqué suñu solidarité aussi suñu confrères yi. wax nañ ko fi keroog da la fekk Gossas. Ah, parce que nag lii vraiment nañu nañu dox ci apaisement waaye. le climat mhm. social. ñu war a dox ci am lu koy apaiser. man sama problème xam nga lan la. pourquoi booy dénoncer wala ngay wax li nga xamante ne peut-être. du du doo bokk ak xalaat ñi ñi nekk ci pouvoir souvent da am ay jafe-jafe ay problème je vais citer l'exemple de euh, nit dof ah. bi waroon def concert am ah. à vingt quatre heures de cet événement nga annuler concert bi te muñ nañ ni am na ñu naan euh, coïncidence la am ñu naan mais bu dee coïncidence tamit doy na waar doy na waar bu fekkee ni da nga bokk ci benn wàll bi rek. Euh, ñu lay tënk ci boor bu ne lu ñu war a mën a xoolaat la. je pense dañu nekk di commettre ay erreurs yu garaaw yoo xamante ne. gis nga cette jeunesse là. jeunesse kenn du ko muselé. non. nga activité nit dof bi man mos naa fekkee benn. événement bu que boo koy xañ stade Iba Mar. Mhm. ko alternative ci saa si ci saa si. annulation laa mënul dégg man. mais nañ ko proposé fële arena yow mënoo jël. avance proposé ko feneen. ak li ñu ñi ñi xam préparation événement ni mu mel yow mi nga xamante ne da ngay da nga leen di da ngay fréquenter artistes yeeg da nga leen xam et tout préparer événement ni mu toll li ngay dépenser. ñu bàyyi ba à vingt quatre heures. ñu lay soog a euh, annoncé que ni dañu annuler sa événement loolu lu ñu lu doy waar la. ci ci ci ci ci calendrier culturel euh, euh, du Sénégal. Mhm. date bu am solo la. te ñëpp dañ ko doon xaar ñi jóge dans les coins les plus reculés du Sénégal pour ñëw assister ko nga bàyyi à 24 heures nga annulé ko loolu. dafa doy waar c'est presque une injustice. mën naa mhm. waaw waaw mhm. ayca ayca. bokkaat nga. Euh, ba kii Ngab. keroog dama fay wax ma ne. nit nag matul. ay waay. mais xam nga laa mun comprendre. Hmm. te président loolu dañ ko may wax ko. 2012 ba léegi nguur gi bi mu fi ñëwee ba tey. Hmm. xaw ma nag ay onde la xaw ma lan la. coes nit rek 2012 ba tey. Hmm. on coes les sénégalais. ku àndul ak man bloqué. ku àndu parce que loolu boo ko defee un artiste mooy lan. tu l'empêches de vivre tu veux l'emmerder tu veux le faire chier baal leen ma terme bi à la limite j'ai même pas envie de m'excuser au vu. de cette armada de mesquinerie qu'on nous propose. tu vois. quel français. loolu tubaab bu kawe. foo jàngee yow. nit du mami nit du bon. nit du soxor. Oh, te mënoo yor nguur yor ngeen yor lépp ba pare di soxore nit ñi. di yi nga yor lépp di soxore ko yorul. Mm-hmm. ku wut parce que àndul ak yow d'accordul ak yow waaye noo tey ñàkk ànd ak yéen parce que doxalin bay ñaaw. Mm-hmm. rafetul. Mhm. vous ne pouvez pas continuer à diriger ce pays comme ça. Mhm. président rectifier bala moo yéex peuple kenn du ko sës si mur li ngeen dee def rafetul. Paa Sane lu tax boo meree boo wax nii da nga mel ni rapport sa mbagg yi day def nii day day yëngatu di yëg ko waaye. dafa ñaaw quoi loolu dafa ñaaw. nit def nit dof c'est dégueulasse du yoon. nit dof dañ ko bàyyi mu def nii du yoon bàyyi leen di toog teeru bi. Piazza, ah. Kaiser ak fa ca des bu ngeen jógee toog à deux à trois naan non man je vais le dire au président je vais kii kii gras yi di defante di bloquer nit ñi di coince parce que d'accord ñoo yéen idée il faut arrêter ça benn lanu nous sommes des Sénégalais dañu war a ànd defar suñu réew mais quand nous avançons, quand est-ce qu'on va avancer Vous bloquez les gens one by one dans les entreprises, dans la création, dans que, mais mais mais ah. arrêtez quoi. mer nga. mer nga de te waa Démé Dia yi sax dëgg dëgg. bu ngeen bu ngeen bu ngeen bu ngeen liquider waa Démé Dia wala liquider wu leen bugaan déedéet ñu fa liggéeyee ngeen di liquider. te ñu fay dëgg dëgg ay jàmbaar lañu ay liggéeykat lañu. jàmbaar lañu ñu ngi def seen liggéey. bàyyi leen liggéey leen reculer reculer reculer reculer pendant qu'il est temps la non reculer ah. di média bi muñ ko bëggee liquidé loolu liquidé wuñu bugaan de liquidé wuñu bugaan bu leen fàttali c'est des de de travailleurs yu fa nekk mu ngi nii Macky day dul son plan de liquidation du groupe des médias damaa lire rek mais mu du fekkee ci loolu amul boobu parce que sénégalais yi ko nangu loolu amul loolu yoon fu ñu koy teg média ci seen sondage gii rek moom dëgg-dëgg moo jël pay fu ñu koy teg fayoo wuy ma fayoo impôt dañ lay liquider waaw de duñ ko nangu sax duñ ko nangu parce que yow yaa ngi am jafe-jafe créer emploi kii créer emploi dafa société ba pare nga bëgg a jël man man kaasalu ma bugaan man sama yoon nekkul ci bugaan ngay dani consa kaasalu ma ko ah na leer ña fay liggéey yee laay kaasal mhm. sama confrère sama conseiller ya fa nekk ñooñu laay kaasal kaasaluma ñeneen ñooñu dañuy liggéey di daan seen doole bu weer dee di fayeku seen salaire di ko dundal seen i njaboot mm-hmm. te amal nañu société bi njariñ kon nag ñooñu nag wax dëgg yàlla lépp loo xamante ne daf leen di nasaxal loolu du yoon nañu ut benn procédé boo xamante ne nii dinañu leen mën a permettre bon ñu régler seen problème ñoom ñëpp te cee coow du am dara du am beneen bi ci topp directeur yi bàyyi leen woote ci émission yi loolu bëgguma ko vox populi yi hmm? a de réew mi xam nga ko yàq soo moom bilaay dinaa ko péréte. ku ma mburoog mburoog mburoog mburoog mburoog loolu may seen. eh eh wax mi ne ma. mburoog mburoog mburoog lan la. vox populi yi. dama ne. eh. réew mi xam nga lu ko yàq non damaa dégg Aliou Sow le ministre ah le ministre muy wax di mel ne kuy tontu nit dof. mooy ma ci waay gis nga un ministre de la république. Mm-hmm. tuuti rek. fam foo war a toll. mbir yi. Mm-hmm. tolluwaay la dayoo. Mm-hmm. moom Aliou Sow ku ko fekk. yéeyaay. muy mel ne kuy tonton teg nit dof wàcce na boppam te nag na xam ne moom il a l'obligation d'accompagner tous les acteurs culturels de ce pays y mhm. compris ñu àndut ak ñoom mhm. mais réew mi li ko yàq mooy ànd nga ak man dama lay jàppale àndoog man dama lay xeex mm. yaa ngi may dégg mm. bi concert bi nga xam ne at baab lay at baab lay am defe naa dara dara waruloon tax ñu annulé ko kaa jàppale ko. Mm. est may dégg. la waaw ah, dafa mel ne yow yaa ngi ci leneen demal. njëriñ ci ne dafa moom wax dëgg yàlla mu metti metti lool lool lool lool lool. te metti na sénégalais yu bëri bay wax ak rappeur. Mm. c'est l'une des dates phares euh, de l'agenda culturel. de ñoo xam ne yow yow la ministre yow yaa leen war a yaa war a aar organiser leen jàppale leen. mais mm-hmm. réew mi xoolal ñi ànd ak pouvoir bi xool ñi àndut ak pouvoir bi nga xool traitement bi ndax benn la. dañu waxante dëgg rek. dëgg la de. Ah. walaay dëgg la te loolu nag loolu nag doxalul réew sax nag soo seet. Mm-hmm. soo seet contradiction dafa baax sax ci réew. Mm-hmm. Ah, contradiction ci lépp la baax en réalité. kon yéen da ngeen di nekk parce que ak yow dëgg dëgg. tubaab am na am na xamante ne ni nga koy régler ak ak ak euh, booy interdire interdiction yi su baree ba bari non mais sérieusement da ngay dem ba tu te des ennemis. mais c'est ça gratuitement dëgg la. revue des bi dinaa ko bàyyi de baal nañ la dinaa ko bàyyi de bu ngeen ma bàyyi ma dem ci vox populi dinaa ko bàyyi de gestion cent milliards yi milliards damaa juum euh, milliards du fonds covid mu ne la scandalisation ne faiblit pas ba tey day gën di am doole li euh, Cheikh Bamba Dièye nee na lii nag boo bëggee dégg dëgg carnage financier la mu ne te loolu xam nga li ci gën a bon mooy dafa dafa dem ba dafa nekk tradition sénégalaise léegi carnage financier bi Cheikh Bamba Dièye man dama ko gëj a sax Cheikh Bamba di leen génn di wax Messi ngoog borom borom borom borom borom ndam lu rëy li dem naa ca lamb ja Karadien dafa analyser derby du premier janvier bi mu ne Balla Gaye numéro 2 dafa am ascendant psychologique ci komba bi mu ne xeex bi nag mënta ñàkk le combat sera inévitable war laay tey du ma taxaw ci làmb yi sa damaa sonn laa leeral ni enfin Messi titre bu neex la rek solo génn fii mhm. ah sori ak fi réew mi toll yépp ak cour de comptes càcc gu métti gii amoon looy tiitare du euphémisme waaye yaa xam mbay toj nga fi ah lii mais lii lii lii lii lii trahison la lii <laughs> tra lii trahison la lii trahison la de ah lii rafet na lii rafet na lii sol daf leen dara sax ngaaram ngaaral mais mais mami man laa la benn affaire est-ce que uni uni yu génn nii euh, format électronique. même uni la ak papier bi. <laughs> waaw soleil kon toj na. pour pourtant du soleil rek a fi toj de. ñi fi toj de bëri nañu xam naa ay tojote la ku nekk rek di ngay wër sa damit. Mhm. waaw wolof tamit mu ngi nii Messi Messi invité Panthéon oh, candidature par la deux mille vingt quatre euh, stade wër na yàlla bu ci record tegul ma bàyyi. beneen bi mooy Messi mu ne touche enfin euh, au gros avec l'Argentine félicitation mérité na ko parce que gagné na lépp dëgg-dëgg Diego Maradona ba léegi Argentine a ngi xaar donc vraiment euh, ndam lii baax na ci ñoom c'est fu mais c'est beau c'est le football te on a aimé la finale d'hier kenn mënut wax ne du woon finale. Mhm. yaa yéy budul woon teg yow nga xam les Lions tiennent tête au au au Fennec euh, ci CAN 2023 amical Algérie Sénégal deux buts partout la beneen bi mooy mhm. enfin sacré champion. Euh, du monde Messi définitivement dans la légende euh, finale Angleterre baa ngi nii troisième étoile brillera pour euh, l'Albi Céleste mu ngo ayca léegi nag heure jot